Euh, salaamaaleykum wa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum mbok internet yi mbégte contenté bu bari lan am dalal len ci li nga xam mom moy di seen émission les échos de la banlieue Tay nak ki ñu dalal mo di monsieur Abou Mbaye ki nga xam mom mo yor front patriotique slash Fall Macky Sall li nga xam mom mo fi am moy depuis la proclamation des résultats provisoires li nga xam mom mo jox ki di monsieur Macky Sall plus de 58 virgule et quelques points bi nga xam ne moom moo ko porté au second tour toujours ñu nekk ci li nga xam ne moom mooy les réactions euh, salaamaaleykum monsieur Mbaye. Euh, maaleykum salaam euh, Mamadou donc maa ngi nuyu ñëpp téléspectateurs yi donc di seetaan chaîne bi nii ngeen ma ma jàkkaarloog surtout askanu waa Géejawaay muy Géejawaay info bàyyeekoo fii suñu gox muy Géejawaay bi nga xam ni kat yàgg nañ maanaam bëgg mu soxleeku yàgg nañ bëgg saafara jafe-jafe askan bi loolu ba léegi ci la ñuy dox. boo gisee euh, mouvement bi sax muy front patriotique pour le développement Réthiou Falmaki donc dafa jóg ngir loolu donc ñu yàgg fii tamit xëccoo ay euh, ay élection maanaam maire rek euh, législatif etc etc voilà monsieur Mbaye bi loolu jàllee dañuy ñëw ci li nga xam ni moom actuellement mooy événement bi mooy actualité bi mu nekk li nga xam ni moom la réélection de du président Macky Sall li nga xam ni bi wax na ko jox na ko li nga xam ni moom sa réélection au premier tour nous les réactions le juge Kandji mu la proclamation provisoire des résultats sentiment par rapport à le résultat la opposition bi xaar. d'abord am sentiment bo xamni dama am euh, xol bu metti d'abord waaw xol bu metti ci lan muy Sénégal de dañ ko une référence en termes de démocratie ñu jàppe woon Sénégal kat ay nit toujours même ba ci euh, fii ci Afrique sous région bi ba ci aduna bi dañ doon vraiment naw Sénégal ci sen démocratie mais ñu gis ne euh, jusque euh, depuis l'installation de ce régime là moy ba fi Macky Sall togué ba léegi depuis 2012 démocratie bobu dañ dañ ko vraiment caxat-caxatee mu muy gëna delu ginaaw donc plusieurs actes xaw nañ fi jaar acte yu bëri yoo xam ne jaar nañ fi wane ne régime bi vraiment jëmalewul kanamu démocratie wu Sénégal jëmalewu kanam tamit euh, Sénégal euh, euh, ci ci ci maanaam ubbeeku ak ak ak vraiment ne am développement wala émergence bu muy dig sénégalais su ma ñëwee ci décision bi décision bi bett na ma bettu ma bett na ma

verdict bi yeen ñep xam ngeen yeen journaliste ngeen yéen yéen a sur le terrain té même avant les élections xamone ngeen ni vraiment cette population là sénégalaise a tourné le dos à ce régime là. parce que sénégalais tamit amna ben foule bi nga xamni ni diggé ben mir benn mbir ah ko ko di bëgg toujours euh, di weñ loxom di jël limu yor sénégalais bobu kat dafa lay dafa lay tourner le dos te Sénégal je pense que nous sommes comme les on a un peuple très mature beaucoup d'événements l'ont montré le 23 juin l'a montré c'est un peuple mature donc euh, population Moi, pense que wone ci au scrutin 24 février bi que régime bi kat tok fi andu ñok même avant sax xam ngeen ni population bi du voter Macky Sall te on est dans une population bi nga xam la majorité est constituée de jeunes De jeunes boo jël maanaam euh, fukki jeune boo jël bu les huit jeunes ne sont pas favorables à Macky Sall donc verdict bi bu amee man daf may jaaxal daf may jaaxal carrément man de jàppoon par A ou par B deuxième tour dafa am te manam deug la euh, yàgguñu noonu non non ci politique waye xam nañ tamit yalla may nañu ñu xam astute politique mu muy doxee ñu xaw fi fekkee ay élection donc bo duggé ci bureau de vote ci centre yi nga dund fa xam nga ni vraiment deuxième tour amna wala amul ñom sax xam nañ ne deuxième tour amna na xam nañ ni gañëw ñu élection yi. voilà kon japp na ni c'est la confiscation du volonté populaire mom la nga xam ni moom la juge def. Il ci de la tension y avait de l'électricité dans l'air. Mhm. mais bi ñu la proclamation entre Thiès. Mhm. quelque part à Dakar après zéro pourquoi opposition bi ñu parce qu'on s'attendait à ce que nous devions ay de ramener les Sénégalais même s'ils n'appellent pas à la violence mais à ce que les gens se rebellent mm. pourquoi pourquoi nous ñu toog mm. waaw c'est-à-dire que depuis la depuis législative c'est presque la même situation parce que législative il y a ay kilifa yi nga gagné gox mais pouvoir bi confisqué, confisquer poste de député ak population bi loolu depuis législative bi législatif bi fekkee ngén ko ay passeport da fay voté ay permis de conduire da fay voté yo xam ay ay affaire yu ñaaw yo xam ne dafa gëna a taxal sunu démocratie donc ba li amé kat ñu gis né vraiment comme mom jaral nako li pouvoir jaral nako li té buñu gennon ay euh, bakkanu doomu adam rek ñoo ci rot ay innocent ñu ni ah ñun kat kon nañ xolaat doxalin comme mom jaral nako lu ne ñun Sénégal vraiment jaral nañu ñu am benn grandeur même bu dee suñu yëf sax ñu ñëw këf ko mais ñu xam ne ñun bu ñu jógee xëccoo ko ah Sénégal mën naa loru ah Sénégal mën naa tàq Sénégal mën na nekk ci jafe-jafe ñu am grandeur daal di toog seetaan ko waaye maanaam xam nga dafa am lu ñu naan ci droit l'usure du pouvoir l'usure du pouvoir muy lan man c'est la première fois dans l'histoire ma gis benn président bi nga xam ni amagul deuxième mandat Manam population am tourné ko au dos xam nga loolu motax tax mo euh sabab rëccu falmaki bi ma jité rëccu falmaki boo ko gisee muy maanaam programme yu mu yu won en 2012 jëfewu ci dara ci jëfewu ci dara donc mën la jox ay ay ay ay exemple mën la jox yoon yokkute mën la jox 25 minutes yi mu doon wax même petit ci këram euh, bu ñu réunion dafa dan wax 23 Alioune Badara Cissé ne ah président 23 ki na dé tout na de doko ko def 25 mu ne 25 mais 23 la waxone donc tay ji ñu gis né vraiment ministre yi dem nañ ba 87 ay secrétaires généraux chargés de mission xam nga légui je pense que né golo bu jóg euh, euh, dugg biir APR samp mouvement dugubir APR mu jox la mu tagal la ben agence jox la directeur directeur. ci ci même wet gi mu naan bourse familial naan dafa bëgg maanaam euh, xeex ndool bi mais mais mais c'est paradoxal yow ñi ngay fay ci ay agence yoo xam ne amuñu benn njëriñ ci gox bi ci ci ci réew mi nga leen di fay ay salaire trois millions ah yow euh, à la à la même période nga ni danga bëgg xeex ndool bi te ñooñu ngay euh, japonais soi-disant japonais et 25000 nga di par 3 mois te pourtant village village c'est une grande famille que yo mot na euh, lim mais maintenant 50 personnes 3000 francs moi mooy mooy s'en dépasse mais un 1 million nga diviser par 3000 a famille la ba ci ci sama muy donc je pense que ne non yep euh bo xolé euh, ba ci bir da ngay xamni ni kat jógul vraiment pour saafara jafé jafé askan bi mais lan moko yitel yitteel muy deuxième mandat deuxième mandat bi nak nu ne jéem na ko ko wutee yéen fekkee ngeen parrainage bi parrainage bi pour la première fois dans l'histoire euh, de la politique sénégalaise ngeen gis lu melni système bi nga xamni kat dafa ni mankat kat du ma bëre ñii waaye ñii laay bëreel te nombre bii laa bëgg ñu bëreel lu ñaaw démocratie kay ku waay waay ku ku ku ne day nodd ne ko kaay nodd bu neexee baat ah nit ñaa ngi dégg bu neexul baat ñu jëlee ko fa mais waay waay ku ne ku ne euh, damay nodd mu ne la déet kii du nodd dafa neex baat du nodd kii du bokk ci nodd bi donc nga gis ne ñu bëri écarté na leen gisoon na ni ñii mën nañ ma xañ réew mi ñii Euh, mën nañ ma indil ay jafe-jafe mu écarté leen teg leen na ba ci cinq ñi mu ni kon cinq ñi léegi kii naa leen léegi maintenant euh, dinaa jéem a yamale lépp ci premier tour donc 57 pour cent yi nii donc euh, xaw ma 57 xaw ma 58 mais yàgg nañ ko véhiculer information boobu donc lu ñu calculer la woon mais mënul am loolu deuxième tour allah kulli aali lu amoon la lu amoon la donc population sénégalaise nak tamit ben, bi nga euh, nit ki nguur président par par tous les moyens donc, ñu jox la donc qu'il attend à ces cinq ans à venir que vraiment lu dina de la part des populations ndax jëlul comme 2012 avec une grande légitimité donc lu ma gis ci les 5 ans à venir kat na xam ni moom la ñun de euh, je pense que ne euh, ci sunu wàll muy rëccu fal Macky bi ñu doon woote démb ak tey te tey jii ne la gën neex ndax tay lañ gëna gis ay ay argument yuy wone ni ki kat dañu ko rëccu sànni ko xop ki kat dañu rëccu tegee ko ci ci ci ci bopp réew mi donc plusieurs actes leur montré mais confiscation des voix wu euh, scrutin au 24 février bi daf ko gën a confirmer daf ñoo gën a jox tamit dëgg daf ñoo gën a jox dëgg ci position bi ñu nekk tey maanaam ñun fi ñu nekkee sax je pense que ne c'est partagé par tous les leaders euh, c'est partagé par toutes les populations sénégalaises maa ngi fàttaliku président Idrissa Seck moom moo doon wax abu naan ma je suis ton premier membre ndax ma gën a Falmaki diko wax avec un ton ironique di donc rëccu fal Macky donc bo xolé yeen nii yëpp daf ko gëna taxawal yëpp daf ko gëna a taxawal moo waxoon euh Raxam du mësa bénéficier d'un décret tay ji mo nekk fi comme un maire importé euh, un maire importé comme du riz brisé comme ceeb bi ngay jëlé fële andi ko fi dal dikoy koy jaay te je pense que né géejawaay kat ñàkk ñu ño xamni ni mën nañ nekk maire

que ne géejawaay sax ñoru ko non waaw gàkku bu ko bu ko géejawaay ñoroon il serait le maire kon moment bi dañ nan le maire de la ville c'est Elage Hadj Malick donc euh, Gakou musul defal dara population bi mu population wu géejawaay tamit musu ko jaral dara ñom tamit won nañ ko ko ci ci ci election yi voilà donc euh, moom mo nekkoon suñu coordinateur coalition au niveau départemental mais gis ngeen ban ban euh, euh, ban moment lañuy ñuy soog a jóg ci campagne bi gis ngeen ko gis ngeen nga ne de Benno Bokk Yaakaar jóg na bu yàgg ñun daal dafa mel ne sax dañu doon divertir dafa mel ne sax pouvoir bi daf ko fay pour mu divertir ñu daal ñu gagné ñu fii ay Guédiawaye voilà malgré ça donc les populations de Guédiawaye ont répondu vraiment à l'appel donc de l'opposition à l'appel de la coalition IDI 2019 voilà loolu bu jàllee dañu ñëw ci li nga xam ne moom mooy des perspectives par rapport ak li nga xam ne moom moo jot a jàll tey lan la Sénégalais yi mën a xaar ci ki nga xam ne moo di président ak ki nga xam ne moom mooy waa opposition bi durant les cinq ans bi lan lañ mën a xaar ci ñoom ak yow bi nga xam ne yow yaa yor parti bi nga xam ne moom moo di dëkk Fall Macky Sall mhm. lan lañ mën a xaar ci stratégie ak perspectives yi di ñëw waaw bon euh, perspective yi donc ci côté opposition bi mooy opposition bi moom day continuer di di opposé wu di avec responsabilité et mesure. Donc, mais j'en appelle aussi à tous les membres de l'opposition, donc euh, qu'ils soient plus euh, présents, aussi nous gëna un caractère. Donc, on a besoin d'une opposition qui caractère pour à porter le combat euh, pour la, euh, de la population. Donc, par rapport à ce régime-là, je pense que les gens qui ont 5 ans passés, nous nañ fait Donc, attendons au pire. Euh, aux 5 ans à venir. Nous avons 50 000 emplois, 500 euh, 000 emplois par an tous les 5 ans. Du signe Chitara. Donc, il y a 1 million d'affaires. Attendons au, au pire. Attendons au pire. Donc, nous avons nous, les jeunes qui ont nous, jeunes qui ont été nous, qui ont été libérés. Mais attendons à pire, au pire à ces 5 ans à venir. Donc, moi, personnellement, donc, dans le cadre du Front Patriotique pour le Développement, nous allons continuer à s'opposer à ce régime-là. Donc, euh, par la sensibilisation, par une autre manière de faire la, la, la, politique. Donc, euh, je pense que ce sommes sunu taxawaay euh, loolu la ci bës yi di ñëw ak at di sama dernière mot moy di Massaw donc euh, di leen masaw maanaam euh, euh note bi len Macky Sall ak euh, néocolonialisme bi fi fii daal di seetlu tamit nan len nan sénégalais yi kat nañ prendre leur destin en main donc buñu bëggé bëggee kat yii yëpp ko yi yëpp changer il faut que le sénégalais prenne ses responsabilités et prenne vraiment son destin en main donc jërëjëf donc di len jaajëfal yéen euh, wa Géejawaay info di jaajëfal bepp euh, population bu nek fi ci Géejawaay sunu gox waaw jërëjëf yàlla na jàmm ci askanu senegal ak ci askanu euh, Seydina Muhammad sallalahu alayhi wasallam sallam. waaw ñu leen jox dig dajé ci benen émission ak benen benen benen politicien pour ñu wax li nga xamni toujours mom moo fi nekk di dox ba keroog Macky Sall di def déclaration inshallah allah rabi jërëjëf.